bokkoon na ci eh, bu fekkente ne tabarakallahu wax ji amul benn ñàkk teggin mën na nañu wax ne géwalu yonent bi la woon sallallahu alayhi wa daan na ko tagg tagg yu jéggi dayoo ndax poète la woon moom Abdullah ibnu Rawaha ku cheroon la ci yonent bi kon ñetti ñi mu jiital ñépp ci xare bi kenn ku ne cher na ci moom jaafar ibnu abi talib moo nekkoon avocat yonent bi sallallahu ndax ku éloquent la woon su masaana def discours lu mu ca wax ñëpp nangu ko ndax fasaax bi ko yàlla defal moom la yebaloon ca najaashi ba ñu fay njëkk a dem moo wax ak najaashi yi ba najaashi jooy moo wax ak najaashi yi ba convaincre ko mu dugg ci diine te booba najaashi yi buur la woon di kilifa kilifa itam ci diine nasaraan mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni mu waxee soldaar si tàgge na leen ñett ñi nga xam ne jiital na leen moo tax am na benn yahud boo xam ne mu ngi tudd Nu'man bi yonent bi di wax wax bi fekkee na ko def ne yow Muhammad juif bi moo wax ak yonent bi ne ko yow Muhammad ni ko ñii nga tudd seen turkat duñu dellu si danañu dee ci xare ba yonent bi ne ko lu tax mu ne ko ndax yonent banu Israil yépp bu ñu masaane def nii ku ci masaane def nii nga doxale rek ñi nga jiital ñëpp danañ leen rey bu ñu rey buñ la reyee diw na diw jiitu kooku buñ ko reyee ne keneen jiitu ñi nga tudd ñépp danañu de foofu nag la yahut ba te moo di juif ba kon ñoom boroomi xam-xam lañu woon ndax boroomi téere lañu yahut ba daldi wax Zayd ibnu Haritha ne ko dénkaaneel lu jiitu ngay dem ci xare bi ndax doo dellusi waaw zeyd ibnu xaarisa ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun baar mu ne ko man daal li ma la mën a wax moo di seede naa dëggal ni kii ma jiital ci xare bi te moo di muhammad ku dëggu la te ku baax la moom daal lool la wax ak yahud ba yonent bi sallallahu alayhi wa di koy jox drapeau ba moom ko joxee drapo bu ba noppi nag daal di koy ñaanal yàlla ñu ni yonent bi sallallahu dénkaane na lu jiitu soldaar ya di départ ndax def na benn discours bu ndaw am lum leen dénk ne leen usikum bi taqwallah wa bi man maakum min almuslimina xayra uxzu bismillahi fi man kafara billah la la taxduru wala eh, taxlu wala taqtulu walidan wala imraatan wala kabiran faniyan wala munadilan bi sawmaatin wala taqrabu naxlan wala taqtau shajaratan wala tahdimu binaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane bii mu dénkaane am na solo ndax mag ñi danañuy wax ne daal jihaad moo gën a yomb former soldaar jóg rek xeex yomb na waaye nag xam charti xeex xam discipline xeex moo gën a jafe jóg rek xeex moo tax yonent bi sallallahu dénk saxaaba ya ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla bàyyi leen xel yàlla bu baax maa ngi leen di dénk itam mm, ñi ngeen àndal ci jullit na ngeen jëflante jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxasoo ba tabaarakallaahu ñu ànd sax seytaane mën naa dox seen diggante ñoom ci seeni boppu ñuy reyante yonent bi ne leen na ngeen xeex ci turu yàlla na ngeen xeex ci yoonu yàlla bépp jëmm joo xam ne weddina yàlla bu leen wor bu leen jéggi dayoo ci rey waaw bu leen rey xale lu xare bi métti métti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu leen rey xale bu ndaw mukk bu leen rey jigéen bu leen rey màggat moo xamante ni tabaarakallaahu amatul kàttanu sax xeex bu leen rey itam nitu yàlla boo xam ne da ngeen ko romb cib montagne wala dangeen ko romb ci jàkka wala dangeen ko romb cib église mu toog di jaamu yàlla moom yoonam nekkul ci xareek la ngeen fekk ko ca jàkkam jooju rey ko bu leen ko def koo xam ne jàmbukatu yàlla la mu nga ca barabam toog lu xare bi metti metti metti bu leen ko fekk fa mu toog kenn rey ko bu leen dagg bu leen jege mukk garabu tàndarma bu leen dagg garab bu leen màbb tabax mu ndax yépp ñiy xeex léegi dañu koy def waaw ñii xeex léegi dañ koy def kon nag suñu soldaar yi nga xamante ni tabaarakallaahu danañuy faral di génni di xare ji nañu xam ne mën neen cee am yàlla kon lépp lu yonent bi tere woon ci xare mu tëta ba léegi ñu ngi koy tere képp koo xam ne yaa ngi ci front di xeex nanga nga moytandiku tabaarakallaahu eh, di wor wor nag moo di dema dema dem ba dugal ak caay-caay tabarakallahu ci biir mbir mi loolu itam baaxul war sa réew baaxul e war sa diine itam baaxul bañ a jéggi dayo itam ci rey nit ki bu dee rek jeex na waaye dagg ay cëram sabote ko yooyu yépp la jéggi dayoo la nit ki bu ruugi xasee dem rek jeex na bul yàq yaramam bu ca def loo xamante ni jaaduwul xale bu ndaw itam rey ko baaxul fekk jigéen ju ëmb tabaarakallaahu ñu rey ko yenn rey yépp baaxul tabaarakallaahu euh, rey jigéen sax dafa xaraam rawatina nag fekk jigéen ju ëmb nga rey ko te yooyu yépp dafay faral di am ci xare yi mag mu màggat tabaarakallaahu nga rey ko loolu itam jaaduwul fekk jaamukatu yàlla boo xamante ni jàmm rek la xam fa mu toog jógu fa nga fekk ko fa mu toog rey ko loolu itam yonent bi tere na ko dagg garab yee tabarkal yàq meññant mi mabba ay tabax yépp jaru ko waaw kon yonent bi sallallahu alayhi moom nii la yare woon ay saxaabaam bu ñu masaan takk xare bay dem lii la leen di wax mu mel ni kon dénkaane bii rëy na lool ci armée bi nga xam ne ñoo jëm Mu'tata pour war a xeex ak romain yi jullit ñi fas ko wax ne ni Abdullah ibnu Rawaxa bi nga xamante ni yàlla dogal na tabarkal la ñu départ war a dem nag moom xaw naa jooy wante jooy ga mu jooy du dafa ragal deede cofeel gi mu am ci sayyiduna Muhammad moo ko jooyloo mu mel ni bi nga xamante ni yàlla dogal na jullit ñi daal di départ ànd ak seeni gànnaay wax ne ne bi ñu ñëwee ba agsi ci réewum Shaam nee wax neen leen ne leen Hiraql la mi nga xam ne moo di buuru Rome yi mu ngi wàcc ci barab bu ñuy wax Maab ci ardu Balqa mu ngi ànd ak téeméeri junni ci ay Rome ci ay soldaar arab yi nga xam ne jóg nunu nar koo jàppale moom Hiraql mi nga xam ne moo di buuru Rome yi arab yooyu rek ñoom itam àgg nañ ci téeméeri soldaar kon ñaar téeméeri sol ñaari maanaam àgg nañ ci téeméeri junniy soldaar kon téeméeri junniy yooyu nga xam ne ñooy Rome yi ak téeméeri junniy soldaar yële nga kon jullit ñi ñetti junniy soldaar rek la noonu lanu ñetti junniy soldaar waaw romain yi nekk nen ñaar téeméeri junniy soldaar kon ni leen romain yi ëppee dafa jéggi dayu dañ leen ëpp daanaka eh, juróom-ñaari yoon moo tax ba nga xamante ni jullit ñi gis nañu mbooloo mu bari moomu ndax boobu Romains yi ñoo nekkoon grande puissance jaaxle nañu wax nañu ne toog nañu sax lu tolloog ñaari guddi di waxtaane mbir mi ndax kat li ñu gis ci soldaar ci Romains yi jéggi na dayo waaw waaw deux mille dégg nga euh, deux cent mille soldaar ah loolu de bari na su fekkente ne danga ko comparé ak rek euh, trois mille soldats moo taxoon jullit ñi daal di jaaxle daal waxtaan ci seen biir ne waaw ndax dañu war a bind lettre yónnee ko na Muhammad wax ko ne ko daal bëgg na noo xare bëgg na noo dimbali lislaam wante nag rome yi seen mbooloo bari na lool ba jéggi dayo foofu la Abdullah ibn Rawaha daal di jóge daal di jël parole ne leen yaa qawm wallahi inna allati takrahuuna la allati xarajtum tatlubuuna ash-shahaada wa ma nuqaatilu annaasa bi adadin wala quwa wala kathra ma nuqaatiluhum illa bi hada addiin alladi akramana allahu bihi fantaliqu fa innama hiya ixda alxusnayayn imma zuhurun wa imma shahaada foofu la Abdullah ibn Rawaha daal di jóge ne leen yéen nit ñi giñ naa ci yàlla ne yéen jullit ñi lii ngeen di ragal moom ngeen jógoon doon ko wuti ndax ku ne xam na ne jullit bu génn ci sa kër war sa fas gàddu sa ngànnaay fas yéene jihaat la ngay ñaan mooy des ci jihaat ba ba mën a nekk martyr mën a nekk shahid mu nekkoon nag maa ngi leen di yëgal ni yàlla mi ñu xeexloo faalewul ab lim yàlla pas-pas rek la xool xool bu ko gëm rek la xool kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen dëgër ci seeni pas-pas ndax yàlla moo ñu terale ñu gëm ko yàlla moo ñu terale diine lislaam kon nag nanu départ nanu song gaay yi nanu xeex na ngeen farlu na ngeen xam ne yàlla ngi ci suñ kanam te yàlla ëpp lépp doole ñaari yiw daal moo taxaw ci suñu kanam benn ñu gañe dellu wala ñu gañe ñu ñu dugg jën bi Abdullah ibnu Rawaxa waxee wax bi nee na ci la jullit ñi nag daldi amaat beneen pas-pas pas bu dëgër ci kanamu yéeféer yooyu di rome yi ñu daldi nag def ay sàppe pour fas yéene jàmmarloog romain yi xeex ak ñoom nag moo taxoon ñu doon wax ne kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah wallahu maa sabirin ñu nekkat bëri na kuréel bu néew ci lim yàlla jox ko doole ba mu mën a not kuréel bu bari lool ci lim wante nag yàlla ànd naag way mu ñi kon nanu muñ rek te xarek ñoom mel ni aaye boobu mu ngi wàccoon ci jaaloota ak taaloota ndax seen xare itam daanaka nii la demee woon foofu nag la Zeyd ibnu Xaarisa daal di jiitoo ca kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba nee na am na ci ndeyjooram benn waay boo xam ne mu ngi bokk ci bani Uzra ñu ngi koy wax xus xutbatu ibnu Qanaada ko féete côté ndeyjoor eh, mu mel ni xare bi commencé bi nga xamante ni xeex bi metti na nee na jullit ñu songante ak yéeféer yi nee na rey gi bari lool wante jullit ñooy rey rekk lu néew ci jullit ñi ñooy daanu waaye lu bari ci yéeféer yi ñu néew ci jullit ñi ñooy daanu waaye lu bari ci yéeféer yi itam ñooy daanu kon li jullit ñi di daaneel moo ëpp li yéeféer yi di daaneel xare bi li ci gën a yéeme moo di ne romain yi ñoom ki yor drapo bi rekk lañuy teg bët moom la ñuy xool moom la ñuy song nee na ci biir cong googu nag ci leen songu Zeyd ibnul Xaritha daal di koy sëxatoo daldi koy rey bi ñu ko reyee drapo ba jotuta daanu Jaafar ibnu Abi daal di jël drapeau ba bi nga xamante ni Jaafar bu Abi Talib jël na drapeau ba moom itam di xare di xeex jàmbaar la woon jàmbaar wu jihaat la woon wax ne ne dafa xeex a xeex a ba yàlla dogal fasam wi àttanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mu koy gêné ne am na ñu ne dafa rey fas wa ñii ne déedéet dafa wàcc ci kaw fas wa rekk yor ngànnaay ba téye drapeau ba di xeex ndax drapo bi dañu wax ne lu mu gën a dugg ci biir noon yi rek jullit ñi di seeni courage ak seenu njàmbaar ak seenu cawarte di gën a yokk ndax lu mu gën a avancé ci biir rek yow drapo bi lu mu gën a avancé rek loolu day wane ne jullit ñi tabaarakallaahu ñu ngi gañe tey jëm kanam wax ne ne Jaafar ibnu Abi nee na xuus na ak drapeau bi di xeex ba wàcc fasam wa ndax fas wa doyatu ko nee na di xeex nee na ba yëg ni fi mu agsi nag ay romain kese la ndax dañoo bari ba ëpp tabarkàlla ba jéggi dayoo nee na ñu wër ko muy xeex nee na ba ñu dagg benn loxo bi nga xam ni moom la téewoon drapo bi te moo di loxo ndeyjoor ba nee na mu daal koy capter ak loxo càmmoñ ba nee na ñu daggaat loxo càmmoñ bi nee na mu daldi koy kepp ak ñaari tànk yi nee na ñu dagg ñaari tànk yi nee na ci la daanu nag ñu tiim ko di ko jamate di ko jamate ba ruux ga daldi génn mu daldi faatu wax ne ni ci waxtu woowu ci la yonent bi sallallahu alayhi fa mu nekk ca màkk mu nga toog ak saxaaba yi di waxtaan ak ñoom foofu la ko xabaar bi fekk kan moo ko war a indil xabaar bi xanaa jibril alayhi salaam wan ko ne ko kat ñu ngi lay jaale jaafar ibnu abi talib ndax rey ko ci xari mu'ta dagg nañu ñaari loxo ya ba dagg ñaari tànk ya yàlla nag dana ko faye ñaari laaf ci aljanna mu koy naawe pour mu fayee ko ko cëram yooyu nga xam ne dagg nañ ko ci xare boobu di xare mu utata looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa tuddee ko jaafar ab tayyaar delluwaat tuddee ko itam jaafar dul euh, janaaxayn maanaam borom ñaare laaf yi foofu nag la jóge moom yonent bi sallallahu alayhi wa di waaxu nag ñëw ba ci kër jaafar ibnu abi talib di nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisanteeg njaboot gi mu ne ko mbaadu sama jëkkër dafa faatu yonent bi ne ko waaw daanu na ca mu'tata soxna si daal di jooy yonent bi ne ku mel ni jaafar ci njàmbaar yey na ñu jooy ko keroog la ko wax mu daldi nag euh, dajale njaboot gi ñaanal leen keroog wax nañ ne rongañam daanu na ba ci sikkimam bu tedd ba moom Seydina Muhammad yal nañu ko yàlla fayal kon jaafar ibnu abi foofu la daanoo yonent bi wax saxaaba yi ne leen jaafar moomu de yàlla fayee na ko ñaari laaf moom lay naawee ëllëg ci aljanna ñépp di ko ko ñeewee nag moo tax ñu koy tuddee jaafar at-Tayyaar wala jaafar dul janaxayn ci la drapeau bi nag tabarakallahu toxoo dem ci Abdullah ibnu Rawaxa moom itam rek mu def na jaafar defoon daal song mbooloo ma rekk xeex ba daldi di takar seen lool ci diggante rome yi ak euh, jullit ñi jullit ñi ñetti junni lanu ñële nag ñaar téeméeri junni lañu ci ay soldaar te am nañu ay ngànnaay tabarkàlla yu doy sëkk bi xare bi mettee ba metti la soob yàlla moo di ne nanu rey Abdullah ibnu Rawaxa géwélu Seyduna Muhammad ñu daal di koy rey moom itam foofu la tëdd kon ñett ña nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi moo leen faloon wax ne bu faatoo na kii jël bu kii faatoo ka ca topp na jël ñoom ñëpp daanu neen ca toolu xare ba foofu nag la ko benn waay la benn waay ci jullit ñi moom itam daldi jële nag moom itam tabaarakallaahu drapo bi bi mu jëlee drapeau bi nag ci la wax ne ndax waa ji nga xamante ni moo jël drapeau bi wax ne ne fekke woon na xare badar mu di thabit ibnu aqram moo ko jëloon wax ne ne fekkee na xare badar te itam saxaabi bu baax la mu daldi wax ne yaa ma'shar al muslimin istalixu ala rajulin minkum mu ne yéen jullit ñi seet leen nag ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne déedéet man yeyowuma jël drapeau bi kon seet leen ku ngeen ko mën a jox ñu daal di tànn nag Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu daal di koy jox drapeau bi Xaalid ibnul Walid nag bokkul woon ci ñett ñi nga xamante ni yonent bi sallallahu moo leen tuddal boppam ndax booba dafa nekk wàcc bees ci lislaam bi mu duggee ci lislaam ak jamono boobu wax nañ ne ci ñetti weer rek la toll looloo taxoon yonent bi amuloon confiance pour boole ko ci tabaarakallaahu Euh, ñett ñi nga xamante ni ñoo war a jiite tabarkal euh, jullit yi ci xari Mu'ta wante Xaalid ibnul Walid moomu yonent bi sallallahu alayhi fa mu toog ca màkk ca law commencé nettali xabaar bi ne ah rey na nanu Zeyd ibnu Xaritha Jaafar jël na drapeau ba rey nanu ko gannaaw Jaafar Abdullah ibnu Rawaxa jël na drapeau ba Abdullah ibnu Rawaxa nag rey nanu ko léegi nag drapo bi dana toxu ci benn ci jaasi yàlla yi nga xamante ni jaasi maanaam ci benn ci jaasi yàlla ju ñu bocc ja ñu ne ah foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawara ca la waxe ne raaye ba maanaam drapo ba kenn maanaam jaas yi ci jaasi yàlla ji jël na ko te booba moo di Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu bi mu jëlee drapo bi nag ku ne xam na Xaalid Xaalid mooy kan jullit ñi ci xare Uhud euh, la leen fa dal ci musiba yépp ci Xaalid Walid la jóge ndax yonent bi e, ku xamoon wàllu xare la moo tax ba mu ñëwee Uhud place ba gën a placé wu fa la taxaw te moo di montagne ba montagne boobu moo taxoon ñu duma jullit ñi ba ñu daw montagne boobu moo taxoon jullit ñu duma yéeféer yi ba ñu daw yonent bi ne bu leen jóge ci montagne bi yàlla dogal nag ba gaaya ba yéeféer ya dawee jullit ñi jël màng gi ci la nag tabaarakallaahu jullit ña nekkoon ca kaw montagne ba werante ñi ne dañuy dem ca màng ga ñi ci des ne yonent bi dafa waxoon ne bu ñu fi jóge bi coow likkee nag déggoowuñu ci seen biir ah, ña ca foqale ci wàllu alal daal di wàcc daw di jëli màng ga ñu tuuti des fa Xaalid ibnul Walid moom moo am xalaatu ne ñee des ca ko montagne bi war na leen fa mën a fekk rey leen ba mu leen fa fekkee rey leen ci leen nag jekku jullit ñi bu baax a baax kon kii di Xaalid ibnul Walid njuumay xare la woon kon bi ko lislaam amee lislaam am na jàmbar ju rëy Xaalid ibnul mii nag moo tëral tëralin boo xamante ni na mu ko doxalee rome yi dañu dem ba foog ne sax jullit ñi ci ni ñuy xeexeek ni Xaalid redressé waat tabarkàlla xare bi ci leen dem ba foog ne dafa am beneen renfort bu jógee Madinatul Munawwara pour dimbali jullit yi ñu daal di ragal nag ñoom dégg nga rome yi daal di ne waqet daw kon Xaalid ibnul Walid moo gañe xare bi keroog la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee sayfullahi almasluur tabaarakallahu mbokk yi euh, mu mel nii li ñu amoon ci waxtu jeex na mais duñu dañ rek di continuer kenn yéen tabaarakallahu waxtaan yi ci wàllu siira incha allahu kon tabaarakallaahu ñu yemale foofu waxtaan wi ba ajjuma ak jàmm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane moo leen doon defal waxtaan wi euh, tabaarakallaahu mu mel nii ci waxtaan wi ñu génn ñu ngi doon waxtaani xare Mu'tata mu mel nii xare la bu nga xam ni tabaarakallaahu mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci moom lool mu bëgg leen lool sayiduna zeyd ibnu ibnu alxaaris ak jaafar ibnu abi talib ak abdullah ibnu rawaxa moo tax ñu ne wa hadihi almaaraka akbaru liqaain wa acdamu xarbin daamiya xaadaha almuslimuuna fi xayaati rasulillah wa hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuxi buldaani nasara waqacat fi jumaadi al-ula sana thamina hijriya ñu ne xare bii di xare mu'tata mu ngi bokk ci xare yi gën a mag xare yi gën a rëy xare yu nga xam ni jullit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool mu suñu jàmmaarloog mbooloo mu toll noonu bi bi lislaam tàmbalee ba léegi mu nekkoon xeex bu yéeme su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu tol noonu ndax ñaari téeméeri junniy soldaar ñetti junniy soldaar mënuñu leen a dékku kon ñaar téeméeri junniy soldaar bu fekkee jàmmaarloo nañu ak ñetti junniy soldaar te mënuluñ leen dara victoire la ci jullit ñi jullit ñi nga xam ne ñoom ñetti jullit ñetti junni lañu mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi xare bi nag mu ngi tàbbi woon maanaam mu ngi ame woon ci atum juróom-ñetteel ma ci gàddaay gi mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga madinatul munawwara أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو yonent bi sallallahu ni mu ko nettalee saxaaba yi daf leen woo ñoom ñépp ca jàkka ja ba mu leen wooyee mu daldi yëg ci kaw minbar ba moom yonent bi sallallahu alayhi gannaaw ba mu jullee ba noppi mu def xutbaam bu rëy nag ñu wuññil ko nag la dale diggante ma mën madinatul munawara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata yonent bi sallallahu alayhi jàkkaarloo xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarloo xare bi Zeyd ibnu Xaritha moo yor drapeau bi mu ngay xeex wante rey nanu ko bi mu waxee loolu ba noppi mu ne rey nanu ko daldi julli ci moom ñaanal ko yàlla daldi wax jullit ñi ne jéggalul leen ko yàlla jullit ñi jéggalul yàlla Zeyd ibnu Xaritha mu ne kon dugg na aljanna mu nga nële di dox drapeau ba gannaaw ba mu jógee ci Zayd ibnu Xaarisa Jaafar ibnu Abi jël na ko ba mu ko jëlee moom itam yonent bi nee na mu ngay xeex mu ngay xeex wante dagg nañu ñaari loxoom dagg na nu ñaari tànkam xar na nu jëmmam ja ñaar ba boo xoolee Jaafar yaram wa lu tollook fanweeri jam-jam mu nga ca jam-jam yépp kanam la ñu féete wante féetewuñu gannaaw xam nga jam-jam bu féete kanam rek dalay won ne boroom dawul ca xare ba ndax ki daw lañuy ñuy gannaaw lu tolloog fanweeri jam-jam jam nañ ko ko moom jaafar ibnu abi talib xar jëmmam ja ñaar dagg ñaari loxoom yaak ñaari tànkam ya yonent bi sallallahu alayhi julli ci moom ñaanal ko yàlla ni jullit ñi istaghfiru li axikum fa innahu shahidun daxalal janna jéggalul leen jaafar ndax kat dagg nañu ñaari loxoom dagg nañu ñaari tànkam xar na nañu jëmmam ja ñaar jëm nañ ko lu tollook fanweeri jam-jam jéggalul leen ko yàlla jullit ñi jéggalul ko yàlla mu ne dugg na aljanna foofu la ñaane nag ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ko remplacer ñaari loxoom yooyu ñu dagg yàlla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy naawe ci aljanna moo tax yonent bi sallallahu alayhi ñaan googu yàlla nangu ko ci saasa moo tax yonent bi ne leen fa huwa yatiiru fi l janna bi janaahayni min yaa